dëggal ay eh, costume la maye tey ñoom ñaar ñëpp giri lañ sol nag looloo ma ci jommal ñoom ñaar ñëpp lañ sol ñoom ñaar ñëpp costume bu giri lañu sol bu giri la sol teg ci chapeau mbaxane ah, waaw ñii am na lu ñu bokk ci sëriñ yi de lii doy na waar parce que boo xoolee lii am na lu ñu bokk ci sëriñ de mais booy ñaaw ak chemise bu weex càppaacolee ngi noonu le fils de Dogol mi ngi noonu jugee Japon dégg nga ma naan Japon yow jugee Japon ma ne jugee Japon déedéet curuxu curuxu curuxu curuxu curuxu fecc la juruxu juruxu. boo ñëwee dafa jàngiwoon xeex si chinois yi wala. xanaa dafa jàngiwoon xeex si chinois la doon def sumo. sumo la doon def mooy chinois yu nganda yooyu. waaw bëri boobu di def deux cent cinquante kilos. ñoom la doon bëreel Japon. waaw ñooñu la doon bëreel Japon. sumo la doon def. di def curuxu curuxu. borom curuxu curuxu mi ngi nii. Assane a ngi nii. Dipee ngi noonu. ñaar ñii ay ay ay magu booy ñaar lañu. ana Seydina Seydina kaay ma walla. Seydina ñaar ñi ay magu booy ñaar lañu Seydina Assane ngi noonu Dipé ngi noonu waa kër booy ñaa ngi noonu oto bi mi ngi avancé oto baa ngi avancé ndànk ndànk pas à pas curuxu curuxu oto bi day fecc curuxu curuxu oto bi curuxu curuxu lay def oto baa ngi naan curuxu curuxu oto bi dafay curuxu curuxu oto baa ngi daagu ndànk booy ñaa mi ngi tari mi ngi tari Faatiya ak xulwa Allahu curuxu curuxu mi ngi ñëw borom curuxu curuxu waa géej waaye ñu ngi naan Lac de Guiers oto baa ngi avancé beneen port bi lay duggee. porte bi nekk ci ginnaaw lay duggee. ñii lii rek lan am si wax si laama ji. yuuxu nii rek lan am si laama ji. yuuxu lañ am nii lan am si laama ji. Hmm. daan leen bu yàgg. bu dee ko de. daan leen bu yàgg. voilà entrée baa ngi noonu. moo oto bi mi ngi avancé. déedéet déedéet bu leen dugg si yooyu. bu leen xeex bu leen gàjjante bu leen màttante. waa géej waaye nag ñu ngi ñu ngi yëngal. ñu ngi yëngal nag Boy Niang mi ngi avancé ndànk-ndànk oto bi mi ngi naan curuxu curuxu di avancé curuxu curuxu non benn am na deuxième porte fii Modou Lo fii la duggee woon face à face keroog bi waa waa waa waa waa Lac de Guiers ngi topp oto Boy Niang oto baa ngi daw avancé na à vive allure oto bi yokku na vitesse Boy ñaa mi ngi avancé le fils de Dogol mi ngi avancé ñëw nañ agsi nañu ci porte bi nekk ci ginnaaw deuxième porte bi lay duggee ginnaaw ci ginnaaw lay duggee mais li ma jaaxal waa la dëgër de ñu ngi ne topp oto Boy Niang Mais booy Niang il bien entouré actuellement il bien entouré le fils de Dogol mi ngi noonu mi ngi avancé mi ngi avancé ndànk-ndànk oto baa ngi avancé ndànk-ndànk agsi na ba ci porte bi léegi agsi na ba ci porte bi ñëwal ñëwal ñëwal Boy Niang 2 agsi na ci porte bi ñu dem jege jege tuuti. jege nañu tuuti léegi voilà ñu bàyyi leen ngeen dund ambiance su arrivée de Boy Niang 2 eh, seen fil bi dina leen andi problème la. a la taxaw ci ginnaaw 80 ba ñu pare liggéey ma ak yow. wuyu ma c'est bon. waaw c'est bon amul problème. ñi si des yëpp nañ taxaw dañuy taxaw ne may ma ah, rek da ngeen di reculer da ngeen di reculer ngeen bàyyi voilà merci waaye waaye li baax déet waay déet waay bu leen saaga voilà ñu ngi xaar ba tey euh, booy Niang mi ngi ci biir oto bi staff bi ñu ngi waxtaan entourage bi ñu ngi waxtaan xool dugg bi ñaata personne ñooy dugg kan ak kan ñooy dugg dugg toog ci table yi ah ñu reer ah def face à bu neex Pape Diouf wéyal ñu. li ma gën a jaaxal nag Pape Diouf mooy woy te Pikine la dëkk. laamu ji ñoo ko laa. lan yow. laamu ji ko moom. ñun waa Pikine nga ni a moom. xoolal laaj. damay laaj rek damay laaj rek. géejewaay. waaw saa waay dafa amin. amin ah, na jeex na. amin na fa de bëgg na fa trop. dugg na fa ñun soxla du kuy sax. yàlla baax na. ba làmb ji rek incha allah. lu ñu soxla du kii am na yoon bu ñu tracé loolu mooy bu jeexee rek jeex na dafa mel ni jeexagul. waaw lu mu wax leer na. nee na jeexagul. nee jeexagul ba léegi pareegul géej waaye. pareegul loolu dégg nga am na fu ñu jëm de. dégg nga fu mu waxee. am na lu ñu bëgg de. <laughs> laa ilaaha illallaah. na nañ. ay dëgg la waay. booy ñaa ngi noonu dugg nekk ci biir oto bi ba tey. man ba léegi génnagul moom ma jaaxal. xam naa gaa ngi koy préparé pour mu xàll. waaw non dafay am ay affaire xam nga rek làmb la. dañuy suy xorom waaw ñu ngi ne tekk li ma gën a jaaxal tekk gi dañ def tekk amul xuloo amul xew amul xew ci li muy leer waaw sur ma téléphone la mu may xool di reese ko man lay sourire man buur ba xew ci ruxu dara jëy rasulaay booy ñaama xew Cheikh Yérim ay maamam sama sam la xool na ko Yérim say mbir daaxal na ma mu nga bàyyi ko ca kaw wa am ko wa na sama yi xut ba rabbaani saaw si ci la fi sa dégol wax buur géwal ci buur géwal moo nekk la am xaar jaagat buur géwél waaw buur géwél géwél ndi ana juruxu juruxu juruxu mi ngi woy mu ngi wuyu téléphone nee ko waaw ok nee ko waaw su ma ñëw ma joxoon ko béjjën bi waaw béjjën bi laa koy joxañ nii waaw booy ñaa mi ngi wuyu téléphone ci biir oto bi per Père Bourkhane mi ngi taxaw ci buntu bi son manager yàgg moom ànd ak moom nekk ak moom yar ko ba muy nekk tout tànk waaye voilà léegi nag daa mel ni kii mbër léegi mu wàcc mbër na gaaw ñu dugg ñu fas à face ñu fecc ba mu saf sap curxu curxu waaw man damaa gëj a fecc est xam nga ne ma damaa gëj a fecc. foog ñu laal tey ah naa cinq ans fecc. kon naa la may poj bu garaaw tey rek la fii di toj. tey rek la fii di toj. waaw. waaw bisimilah bu wàccee rek mu may ñu ñaari baat. mu may ñu ñaari kàddu. bu ñu duggee ci biir ñu àggali ko ñu yaatal ko. ñaari kàddu. non Père Bourkhane mi ngi wax ak mbër mi ngi koy conseiller ak Assane son frère càppa cole ngi wàcc curuxu curuxu mi ngi wàcc curuxu curuxu wàcc na ak costume bu gris bi càppa coli